commité euh, comité national ITIE moom euh, dafay publier chaque année euh, rapport am bii mooy ñaareelu rapport bi nga xamante ni comité national mi ngi koy publier le premier rapport mu ngi doon porté ci exercice budgétaire ci année budgétaire 2013 deuxième rapport bi mi ngi porté ci année budgétaire 2014 rapport bi nag rapport bu am solo la parce que daf ñu permettre ñu réaliser ñaari ñaari mbir yu am importance sooy def rapport wala ngay joxe ay information dans le secteur extractif dans un pays da nga war a def li ñuy woowee exhaustivité mooy lépp loo xamante ne dafa nekk compagnie minière compagnie pétrolière wala compagnie gazière nekk ci dëkk bi dafa war a def ay déclaration revenu yi te loolu compagnie yëpp def nañ ko euh, li am solo aussi mooy compagnie yi données yi ñu fournir aussi dañu nekk li ñuy wax des données certifiées des données fiable parce que faut mu am ay auditeurs euh, yoo xamante ne ñooy wane ne Euh, li compagnie yi fournir noonu la sinon ku nekk mun nga déclarer lépp lu neex donc dafa nekk rapport boo xamante ni euh, rapport de qualité la rapport la boo xamante ni day jox ay information yu am solo ci lépp loo xamante ni dafa euh, aaju ci wàllu miin wala pétrole wala gaz par exemple rapport bi day joxe ay information yu bari sur toute la chaîne de valeur mais rapport bi day joxe ay information aussi lu mel ni par exemple contribution du secteur Euh, à l'économie par exemple gis nañ ne secteur bi euh, ci rapport ba le passé euh, contribution bi à peu près quarante six milliards la woon mais bi pa dem nañu ba cent dix neuf milliards et ci biir cent dix sept milliards ci biir cent dix sept milliards sax seetlu nañu ne daanaka cent neuf milliards yi mu ngi jóge ci secteur mine huit milliards yi moo jóge ci wàllu pétrole donc gis nañu tamit ne Euh, am na ay sénégalais yu bari yoo xam ne ñu ngi liggéey aussi ci wàllu euh, mine pétrole gaz mat nañu daanaka six mille te six mille yi soo ko jëlee plus de quatre vingt quinze pour cent daanaka euh, ay sénégalais lañu donc gis nañ ne secteur extractif du woon loo xamante ni bu njëkk ba amoon na importance trop Sénégal mine pétrole suñ ko doon wax yeneen dëkk la ñu xalaat mais de plus en plus Sénégal mi ngi commencé di nekk pays minier dina mi ngi commencé aussi di nekk de plus en plus pays pétrolier loolu sax moo indi. Euh, président de la république jël ay mesures yu importantes pour pour pour pour prouver que secteur yooyu ñu ngi koy exploiter dans la transparence loolu moo indi adhésion Sénégal euh, ITIE loolu moo indi par exemple Sénégal adopté le code de transparence euh, loolu moo indi par exemple plus récemment ñu créer kuréel bu mel ne COS Petrogaz nga xamante ni gouvernement bi da ciy nekk waaye yëpp kuréel yoo xamante ni exploitation pétrolière dafa leen intéressé pour ñuy mun a di wax di di di di di di waxtaan di concerté wu pour euh, assister président de la république ci comme ci nu ñuy définir politique pétrolière ak nu ñuy mëne politique pétrolière bi. bi jëm sànq jotaal ak yëkkati ay kàddu jëmale ko nee nañ collectivités <coughs> yi daanaka dañ leen boolewul ci mbir ba tax na lu ci bëri loo xamante ne war nañ koo am daanaka lañ leen xaw a ci mbir moom. waaw c'est vrai soo xoolee gouvernance des industries extractives état bi moo ci gën am rôle état bi par exemple mooy joxe licence yi mooy joxe permis état bi tam mooy percevoir euh, impôts yi euh, waaye. Euh, dañuy seetlu ne acte trois de la décentralisation bi muy ñëwee ak code minier bi bi muy ñëwee ñu ngi def ay jéego pour yokk pouvoir yi nga xamante ni collectivités locale yi am nañ ko ci wàllu gouvernance des industries extractives léegi ñu leen di impliquer de plus en plus ci attribution licence yi ci attribution permis mais ñu ngi leen di aussi impliquer ci gestion revenu yi nga xamante ni dañ koy tirer ci secteur bi par exemple euh, depuis 2009 amoon na benn. décret bu ñuy wax le décret ci porte sur la péréquation soo leen xoolee secteur euh, code minier bu bees bi léegi li ñuy wax leer na euh, vingt pour cent des revenus tirés du secteur des mines léegi ñu ngi koy affecté collectivités locales yi donc am na ay efforts yoo xamante ne ñu ngi koy def seetlu nañ nag ne mise en œuvre bi xaw na yéex par exemple euh, euh, président de la République jël na benn décret ne pour fonds de péréquation bi ñu jox ko collectivités locales yi mais non seulement dañ leen ko jox mais na rétroagir ça veut dire que dañu war a xool depuis euh, deux trois ans fonds yëpp dañ ko war dajale jox ko collectivité locale bi loolu nag euh, gouvernement bi na ci yëngutu ba nga xamante ni retard boobu mu ñu am euh, dinañ ko corriger incha allah. ak miin yi pétrole beeg gaz bi ci Sénégal dafa bëri coow bëri wax. donc euh, tey dañ waa rap waa yi dañ fi ñëwoon pour bokk ak ñun rapport 2014 bi ñu def ci mbiru ñi nga xam ni ñooy exploité mine carrière yi ñu génne li nga xam ni publier li nga xam moom la ñuy fay mais dama ne publier wax li ñuy fay baax na lool mais aussi wax fan la xaalis bi di dugg am na ci solo ba tax na ñun dañu jàpp ni ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci gox-goxaat yi mooy mairie yeeg euh, conseil département gisuñu seen bopp ci li nga xam ne moom la ñuy publier ndax boobu ba léegi depuis 2009 benn dërëm mën naa ne jugewul ci euh, euh, comment s'appelle euh, entreprise minière yi jëm ci côté locale yi ci li nga xam ne moom mooy impôt taxe peut-être yenn saa yi dinañ def ay action may ay biir màkk fii may ay xar may ay ASC ay ay mayo mais du looloo ñu tax a jóg ñun ay projet développement moo ñu tax a jóg kon dañu defe ni li nga xam ni mooy li nga xam ni koom la boo xam ni ñun ñoo ko bokk mu jóge ci suuf si dañ ko war a def ba ñëpp di ci gis surtout ñi nga xam ni ñoom la gën a impacté mooy population yi dëkk ak ñoom ndax par exemple soo demee zone Ngoundiane nga gis ni waa dañu dëkk carrière yi mën naa su carrière ubbee commencé sax ñu mën a taal añ wala wala dañuy tëj ci biir néeg la ñuy togge ndax suñu toggee ci biti kenn du ko lekk donc loolu lépp day wane impact yi nga xam ne mu ngi am beneen bi aussi ñu ni 117 milliards la ñu fay boobu ci at 2014 bi loolu la rapport wax mais 117 milliards suñ doxaloon yoon 20 pour cent ou 117 milliards yi dafa war a jëm ci côté local loolu la état wax. loolu la décret ya fonds de dërëm duggagul bien que benn ministre sax nee nañu. waa mine yi fay nañu mais ñun ñoo répartirul c'est que kon état bi moo nekk en faute état bee deful wàllam wala moo jël xaalis côté local te loolu quand du yoon moo tax ñun ñu ni ite au delà de ngeen wax li nga xam ne ñu ngi koy fay il faut ngeen topp aussi mbir mi ba côté local li ñu ci war am ko ci ba tax na kon ñun dañu jàpp ni donc liggéey euh, liggéey bi am na solo mais des na nañ ko gën a améliorer te defe naa ni déggoon nañ ci beneen bi mooy mbiru pétrole bi nga xam ni moo lëmbe Sénégal ñëpp di ci wax pétrole boobu dañ ni Thiès am na ci mooy tonne pétrole bu ne Kayar ñun sax conseil départemental yónnee woon nañu benn euh, rapport pour wax ñu pétrole beeg ñi ko war a xool ak yooyu mais boobu ba léegi lañ ci gën a am gëj am dara def nañ fa benn euh, audience publique population yi wax ñoom li ñuy tiit mooy suñu commencé exploiter pétrole même bi ñuy wër pétrole bi bateau bi ñu jëloon pour mu dem ci biir géej xool pétrole yooyu yëpp da impact yi mu doon am ci population ak ci ci ci kii bi ci pêche bi mun mooy euh, napp gi yooyu yëpp ay inquiétude la mais boobu léegi amaatuñu retour population yi leen waxoon wax nañ ko ñun wax nañ leen liñ ci xalaatoon donc dañu jàpp ne aussi mbiru pétrole bi war nañ ko gën a xoolaat li nga xam ni euh, moo ci nekk yëpp mu gën a leer ñun loolu la ñu demandé mais aussi population yi nga xam ni ëllëg ñu ci def ñoom ñoo ciy gën a loru yenn saay bien que mën na indi koom ñu def noo xam ni daal lor gi dina wàññeeku te koom gi ñëpp dinañ ko bokk ci Sénégal. waaw xam nga comme li wax si Ngoundiane sànq moo ci nekk Ngoundiane mënoo jël carrières yi yeeg dëkk population yi di ko di exploiter di lor population yi ba pare ñooñu seen siège société yi nekk dakaar nga dem fay dakaar bàyyi waa Ngoundiane loolu dafa jaaduwul dañ ne moo tax ñu ne état man ñu ni taxi yi dañ ko def pour ñu modi war ko modifier suñu gisee ni am na lu ci jaarul yoon loolu lañ demandé ñu modifier texte yi xoolaat ko xool boo xam ni population yi dinañ ci gën a gis seen bopp jërëjëf merci. réew mi yëpp dañuy jël seen chiffre d'affaires hors taxe nag ba lañ ci génne benn impôt jox 0,5 pour cent rek su dee entreprise def na 200 milliards sa loolu yomb na ci ñoom 1 milliard bi day dellusiwaat ci collectivités locales yi beneen bi mooy fonds d'appui et de péréquation locale 20 pour cent redevance yi dafay delluwaat ci entreprise yi mais 2009 bi ñu defee clé de répartition baaxuloon am na ay région comme Sédhiou ñu am 1000 francs ñi am 1200 1000 kër léegi nag ñu jiyanti ko président génn décret mais malgré malheureusement décret bi amul effet parce que décret bi depuis décembre la mu war a jël 2011 ba tey yi pour jox collectivités locales yi seen àq. fonds de péréquation yi ba léegi 2011 ba léegi rapport bi wane na kenn joxe woo. benn xam nga aussi maire yi ñoom loolu seen mbir la ñoo war a jël affaire bi parce que lu état signé nga xam ne seen àq la ak seen xaalis boo xam ne ñoo ko moom ñoom ñoo war a def ni ko jaatara defee léegi président réseau a ànd tey mais fexe na ba kuréelu ministère yi ko seex parce que ministère yi bari la finance collectivité locale ministère des mines ak ministère de l'énergie ñoom ñoo war a toog ñu ni ah lii kat calculer nañ ko parce que yow mën naa calculer ndax itee léegi indi na chiffre yi mu leer nañ bi aussi mooy gis nañ que ni léegi am na waxtaan bu am par exemple tey déggatoo coow ci zone minière yu bëri ndax état mi ngi waxtaan ak population yi ak société civile ak secteur privé bi beneen bi nga xam tam mën nañ ko wax daal pour tënk mooy suñu bëggee ressources minérales yi nga xam ni parce que waxtaan wi ñuy coow li réew mi soulevé coow mu baax la ndax réew mi ressources yi elles appartiennent au peuple sénégalais génération actuelle future yi dañ ci am état nag da koy gérer maanaam ci transparence pour le profit de ces populations mais ay benn nit wala ñetti waruñ ko moom léegi nag yooyu moo doon am moo tax conflit d'intérêt fi ñu toll wax nañu ne loi bi da koy dugal mais propriétaire aussi ñu koy dugal ci norme bi léegi maanaam ñen ñoo entreprise nga xam ne ñu doon coow doomu diwla ak frère u diwla yooyu yëpp dafay jeex léegi à partir de 2016 donc am na ay jéego mais nag ba am na ay raq-raq parce que jafe-jafe yi askan baa ngi mais ba suñu seen part parce que daaw 3 pour cent rek moo a